C'est bon pour tout le monde Bah, nada. C'est bon, hein C'est bon C'est bon. Vous n'êtes pas mal, hein C'est bon. action. C'est ça. une minute. action. de Ba. ñëwaat rek si lan moo waral waaw dama man dama jàppoon ni Moustapha Diakhaté woo nañ ko waxtu bi war nañu bàyyi mu dellu këram. ndax gisuma sax lu tax ñu koy woo. déglu naa émission bi naam mun na am moom ci façon ngi waxam am na nu mu waxee waaye waxu fi lenn lu ñaaw te waxu fi lenn loo xam ne muy ñi nekk ci réew mi jiitu réew mi ci boppam jàpp nañ ko yóbbu ko. dégg ngeen li mu magistrat magistrat premier ministre kazalik dogna assemblée ak amul façon saga buñu sagawul ay kilifa rew mi muy président muy assemblée ba barki ci campagne bi muy fi gatsa gatsa donc ño xamné ñom agression verbale ci lañu am sensibilité lu tubaab di sensibilité manam nga nga gis sa bop luñ la wax rek luñ

ñom ñoo wara dalal réew bu ñak kenn ñaar ñu wax lo buñ leen déglu quoi sénégalais xey ci liggéey bi pour Sénégal jëm kanam pour xalé yi am pour dund gi pour jafé jafé yi nga amuñu bourse di manifester comme tey régler problème yoyu pas di nek di vraiment c'est, c'est, et Moustapha un ami C'est quelqu'un je sais que ku am respecter

parce que président de la république ci réew mi yàlla la dal. mun nga wax lu la neex ci ku neex mais bu yegsee ci président wala premier ministre ñu ne wax nga wax gu teggnu alors que seen jëf seen jëf la ñuy la ñuy wax <laughs> encore une fois président de la république c'est pas parce que dugg nga palais takkal nañ la euh, càkk boobu rek dootoo wax euh, lu waxul léeg-léeg nga juum wax lu waxul léeg-léeg nga wax lu safaanu lan la ñuy wax dañu wara wax que même si waxé luddul deug deug même bo défé lu ñu la lu bax nga le wax ni président de la république loolu que wara ñëk dindi ci suñu code pénal parce que réewum démocratie France États-Unis da ngay dégg président bi day mais il frontalement parce que nit ku ne dafa susceptible wax na ko si dul noonu waxee na alors vraiment euh, encore une fois man suis jàppoon ni ngi gaa yaa ngi xalaat nu ñuy defee seen budget woo assemblée bu bees bi liggéey ci budget bi parce que lolu moy prioritaire liggéey ci sen dette bu élevé bi nak lañ koy régler liggéey ci nak lañuy régler problème sénégalais yi nga xamné ñu ngi koy jankontel au jour le jour ba nga xam ne ñu bëri ko ñu sen salaire am na ay agence ak ay direction yo xamné ñu ci sen ñaarël wër wala ñetteelu wër sans sans salaire même assemblée nationale dagg nañ fa lu bari ci salaire du député yu war a génn parce que jàpp nañu ni que euh, peut-être amuñu koppar di lebu partout loolu mooy problème sénégalais yi. merci beaucoup nga li nga assemblée assemblée. bon bon non je voudrais dire que je suis moi-même surpris de me retrouver là parce que je pensais qu'à cette heure-ci Moustapha Diakhaté était relaxé sans autre forme il n'aurait jamais dû être convoqué. Et je me dois, malgré tout, malgré mes réticences, d'être là parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable dans ce pays. Euh, on a entendu des propos autrement plus graves et outranciers. Et chaque jour, moi suis à l'Assemblée nationale, j'ai entendu des ministres être traités de menteurs, des généraux être traités d'assassins, des, des, des, des, présidents de la République de tous les noms. C'est les mêmes qui cultivaient ça, qui à longueur de journée font insulter les gens dans les réseaux sociaux, qui décrètent 72 heures de punition de quelqu'un, qui, sont, une sensibilité de sainte nous touche dès lors qu'on leur renvoie un millième de ce qu'ils ont dit. Ça, c'est inadmissible. On est dans une démocratie. Et le président de la République n'est ni un dieu, ni un saint, au point d'être exempt de défauts, d'être exempt de trébucher, de faire des erreurs. Et quand il fait des erreurs ou quand il dit une chose et fait le contraire, comment on traite ça Quand il dit des choses qui sont fausses, comment on va lui dire Alors, faut arrêter et changer le code pénal. Aujourd'hui, les Sénégalais s'attendent à ce que le président de la République, le Premier ministre soit vraiment, et l'ensemble de leurs structures, soit focus, concentré sur comment chercher des solutions aux problèmes immenses qui assaillent le Sénégal. Ils ne devraient même pas avoir le temps d'écouter des émissions de celles de Mustafa Diakhaté ou d'autres. Ils doivent être focus sur les enfants qui sont en train de s'organiser pour aller en mer, ou les enfants qui qui font des grèves pour, pour, pour euh, qu'on leur paye leur bourse. Beaucoup d'agences dans ce pays sont à deux mois, trois mois sans salaire. La Poste euh, et d'autres entités, la Direction générale de la protection sociale, même à l'Assemblée nationale, ils ont sucré une partie des salaires des députés. Le HCCT, le CSE, n'en parlons pas. Donc voilà des problèmes graves qui assaillent le pays. La dette, dans deux mois, ils auront peut-être une échéance qu'il va être difficile de régler. Voilà les problèmes de ce pays sur lesquels mais leur attention doit être focus. Ils ne doivent pas avoir le temps de s'occuper de détails. Moi, je considérais qu'ils n'ont pas le temps d'écouter Mustafa Diakhaté ou Thierry Sall ou quelqu'un d'autre qui peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change Donc, ils ont un nouveau mandat. Ils doivent focus sur les problèmes du pays. Focus sur les gens qui sont dans des zones, dans le monde rural que j'ai vu, qui restent six mois sans, forage. Les forages ne, ne fonctionnent pas. Des gens qui sont dans l'obscurité. Voilà suffisamment d'adversaires. je vous remercie. waaw ah, Adama yegg sigul ñu ngi ñaan bu ñëwee bu wax li xam ñu bàyyi ko mu dellu parce que fi ay téye nit waxtu Moustapha Diakhaté lepp luñ ko mënon laaj ci benn waxtu waron nañ ko ko mëna laaj euh mu jeex waaye téye ko fi diko xarlo ci ay ki pour pour pour

nga xam ne chaque jour dina am ñu bëgg a dem géej chaque jour am na ay agresseur chaque jour am na ay kii war ñu nekk fii ni ne cybercriminalité cybercriminalité chaque jour ñu sàcc ay xaalisu nit di këf ay portable nit di woo demee police ñu ne la euh, mënuñu topp cas yooyu ñu këf ay alalu jàmbur ci mbedd mi mais loolu war nañu topp toppatoo loolu quoi mu amul solo